ak euh, mbootaayam incha allah dañu fas yéene amal ci bëccëgu weeru koor bi euh, jotaay bu am solo mu am ñaari thèmes yoo xam ne moom lañ waajal ci bés bi euh, au préalable di rafetlu di gërëm taxawaay yi nga ne ñooy parrain ak marraine ak vraiment ngeen dañu jox euh, kilifa yi euh, Jibril Diouf ku ñu ràññee ci gox bi mu dalal euh, gan bi pour mu war waajal ñaareelu thème bi ak ku dëkkandoo et puis mbooloo bi parce que ci kanam su su ci jotee aussi am na ñaari laaj yoo xamante ne nii ci base bi su fekkee mën nañu ko am bu ñu ko laajtee jëm ci thème bi nga xamante ne nii moom la dafa def ci diggante euh, jeunesse ak religion maanaam ndaw ci diine am na solo indi nga fi histoire yi ci yàlla Yunus di nga def histoire yi ci yàlla Ibrahima nekk ay jàngale am solo te nekk ay référence ci ndaw donc kii euh, nga jiit moom mooy Amady Traoré moom mooy yor jiite euh, mouvement yi ñu ci leen di nuy kenn ku nekk ci tuuram ak santam waaw ñun ay ndaw lañu dëkk ci koñ bi gis ni koñ bi dafa am paix social boo xam ne ni dafa ne ci biir koñ bi muy Grand Yoff parce que man du may wax damay généraliser waaye du ma individualiser du jël xaar yàlla kese parce que mouvement bi bañ kay fondé dañ ko fondé woon ci kaw mu wër Grand Yoff bi yëpp woo jeunesse bi woo mbooloo bi nga xam ne ni jeunesse bi nga xam ne ni ñu ngi ci détresse mënatuñu am lu ñu naan millier boo xam ne bu favorable parce que des fois boo xoolee tey sunu milieu bi tey amatul léegi jeunesse bi nga xam ne ni tey jii ni jël na benn mbir boo xam ne ni muy maanaam yor naa ndey ak baay yor naa ay nit ñu yaakaar ci man war naa jóg mën a taxaw takk sama tubay xar sama tànk tubay ba ñu njariñoo ma bu nekkee sax un cinquième la ci li nga xam ne moom laa am waral na rek ñu toog nekk ay naw toog dajaloo waxtaan si toog ñu xool ne bu ñu fondewee fii dara peut sunu rakk yi ak sunu mag yi nga xam ne ni xawoon nañu jàdd yoon parce que man gisuma ni nit day bon man loolu laa gis raison pour laquelle nag ñu fonde mouvement bi tuddee ko mouvement ànd liggéey sunu gox ñu am comme mouvement bi boo xam ne ni am nañu lu ñu naan devise maanaam lu ñu sumb ñun ñëpp tax ñoo jóg en tant que jeune muy lan jàppal ma jàpp ndax dañoo gis ne ni bu kenn ku nekk jàppee ñu jàpp sunu ndey ak sunu baay jàppale ñu si dañ siy génn incha allahu rabi parce que àdduna ndaw moo ko yor ndaw kon nu ko oustaz waxee sànq bu dul woon ndaw yu bari tanit dina xaw a ñaaw parce que bu ndaw ñëpp réeree mbir kon bés bu yàlla sunu borom jëlee mag yëpp jël seen bakkan ndaw mi des fi kon yaakaar naa ni sunu jumaa yeex sunu église yeex dara du ci am ku ci dem du ci jaamooti dootul amati jaamu jooju kon bu booba religion yi day dee ñu gis ne ni bu ñuy wax tamit dañuy wax ne tey Grand Yoff bokk na ci dëkk boo xam ne dëkk bu ñu jël léegi jagleel ko ni boo gisee ñaawteef wu ne rek teg nañ ko Grand Yoff ñoo xay def d'ailleurs boo seetloo ci suñu jeunesse yi nga xam ne ñoo nekk Grand Yoff am nañu am nañu xam-xam am nañu ay diplôme mais pour ñu liggéey ci ay société seen adresse moo leen di tax ñuy ñàq lu bëri rawatina ñeneen ñi nga xam ne ni comme sama genre yi boo demee di déposer sax CV soo ñu gisee Grand Yoff mooy sa adresse rek du ñu bugg sax jël sa CV parce que dañuy jàpp ni xeet bi nga xam ne jikko joo xam ne ñu ngi leen koy waxee mu ngi ci yow moomu indi ko boo ko indee si société bi dangay ngay yàq société bi raison pour laquelle ñu fondé loolu bugg sunu papa yi ak sunu yaay yi ak sunu mag yi ak sunuy nijaay sunuy tante yi tanit jàppale ñu si ba affaire bi jëm kanam parce que daanaka fal nañ ko ba def ci bureau bureau bi ñii ñoo ci nekk mooy bureau bu koy doxal ndax kër lu mu mënta dox dox te amul kilifa kër googu du dox kër balaa moo dox fag mu am kilifa ki nga xam ne bu ne waaw ñëpp àndax moom ne waaw su ne déet ñëpp àndax moom ne déet man pour man kër noonu lay doxee lii mooy bureau bi coordinateur bi man la maa ngi tudd Amady Traoré sama secretaire général di Maymouna Iya Bayo sama sec euh, secrétaire adjoint beneen bi tudd Bio Diouf sama trésorier général tudd Abdourahmane Diallo trésorier adjointe tudd Astou Fall sama ñaari commissaire aux comptes yi tudd Aïda Diouf ak Ousseynou Sané waaw ñun noonu la taxawee. pour mun a jiite mouvement bi di leen sàqul ak tey jii nii xel matul man dama xaw a matadi ndax doomu aadama kese laa damay gërëm te dinaa gërëm ñi nga xam ne toog nañu ci tànt bi yow nañu ak ñi nga xam ne yowuñu waaw parce que loolu damay fat fàttali di ko wax muy jeunesse bi nga xam ne ni amaguñu école pour mun a yow maa ngi leen di gërëm ñoom tanit parce que ñu ñuy déglu mais peut-être amaguñu bunt bu ñu mun a yow di ñaaxaat ñoom tamit mun nañu yow parce que mouvement bi tëjalul buntam kenn du agresseur bi mouvement bi tëjalu ko buntam du tukkatu bon bi mouvement bi gën tëjalu ko buntam mouvement bi tëjalul kenn buntam parce que dañuy yor ay jikko rek kenn ku nekk yow ñu war a booloo xool jikko yi nga xam ne baaxul fi ñun ñenn ñi mën ko tonn ci nit ki sànnil ko ko yokkal ko mbaax boo xam ne ni moo nekk ci mouvement bi wax dëgg yàlla tani di gërëm jeunesse bi ma àndal fit bu ñu am ngor bu ñu am ak jom bu ñu am parce que bu ñu amul woon jom ak fit ak ngor du ñu taxawal conférence bi ba mu taxaw tey nii nii di gërëm ñi nga xam ne ni man ñoom laa àndal di gërëm sama yaay yi nga xam ne ñoo dëkk ci koñ bi di gërëm samay papa yi nga xam ne ñoo dëkk ci koñ bi dëkk Grand Yoff di gërëm tamit samay tanta samay nijaay yi nga xam ne ñoo dëkk Grand Yoff di gërëm tamit sa suñuy soxna yi nga xam ne ni ñu ngi dëkk ci biir gox bi waaw di leen jëfal di jégalu tamit une fois de plus bu fekkee ni kàddu bi dafa xaw a ñagas ngeen baal ñu bu fekkee kàddu yi matul ngeen jéggal ñu te xam ne nit rek lañu te nit day juum gërëm bi nag war war na ñëpp. xam-xam yàlla rafet asbab fil islam zen ci lislaam ngoog eh, bëggoon nañu àgg ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam zënam nu mu ko paasee woon ak yenn yitte la amoon xoolal mbokk yi ñiy werante man maay teg xeer bi bi ñuy defaraat kaaba bi ba àgg ci xajarul eh, aswad ñu war ko teg famille bu nekk taxaw ne man maa koy def man maa koy def keroog la ñu jël sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que jeune bu am maalu bu am fulla nekk ku ñu wóolu ñu jël mbir mi yëpp ñu tekk ci loxoom loolu tamit dafay wane ni ndaw buur jëlee boppam jox ko borom bi subhanahu wa taala waxuma la sax koñ bi mais mun nañu jël àdduna bi yëpp ñu tekk ci loxoom su ko defee dina xam ne mu ko contrôler kon mbokk yi ah thème bi sax dama ko xaw a patam patamee waaw te encore nekk na loo xam ne préparé wuñu ko te yàlla xam ne ni su ma yëgoon ne sama sëriñ bi sama baay bi sama ustaas bi moom mooy fi ñëw kon boobaa su ma ñëwee fii laay nekk xam naa xamuma xam naa ko imaam Silla jumaa ji ci ascenseur imaam yi laa bokk sama pap sama pap mooy imaam Adama Ndiaye keroog ñoo nekkoon ci wa marhaban bika kon mbokk yi waxtaan bi su jubee ngeen xam ne ci borom bi la soo amee loo xam ne du noonu xam naa demee ni waxtaan bi su jubee yàlla bu fekkee ne am na keneen ku ñëw ku ci tegu sama baay ji Jibi Diouf waaye su yàqoo nekk moom la ndax moom ak sant en tant que jeune nga koy waxloo muy wax ci jeune kon bu amee loo xam ne mu ngi waxu jeune ah ci moom la in uridu ila al islah mastataatu ma tawfiq illa billah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala aleykum wa ñu ngi jéggalu ci sunu ni ñu doxalee organisation bi mu mel ni dañoo isolé woon tuuti am ñu ñu fi jiitu mu mel ni ñu doon ñu doon ay gan déedéet demewul noonu yéegoo naa ak mbooloo mi kon nag kàddu bu jub bu ne yàlla koy sottal ñu ngi delluwaat di sant yàlla di wax ne alhamdulillahi الذي خدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن خدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم ginnaaw loolu ñuy wax asalaamualeykum mbooloo mi mu mel ne xëy na am na noo leen ko bëggee woon fekk laaju leen ma sama bëgg-bëgg jotaay bi damay tënk ndax oustaz dinaa ko may li mu bëgg a développé mu développé ko te yàlla tax xol yépp a tooy dafa mel ni jotaay bi maag mag ñi fi nekk yépp dañoo jox fukki cër ginnaaw fukki cër yi ñu seppi juróom-ñett juróom-ñetti cër yi delloo ko suma doom ji ak sama xarit bi di sama ustaas mooy sama ustaas man ndax nit ki lépp loo xam rek am na ku la ko xamal yàlla dafa dogal damay tënk rek bu ñu waxtaanee ba pare temps bi maye ko incha allahu dinañu yaatal ci kanam ndax dafa am lu xale yi wax ñoom bi ñu dikkee ci man dañu dañu leen doyloo yéen magi koñ bi amut lenn lu ñuy def te doo leen ko yëg ñu ne ma thème bi nga xam ne ñu ngi koy waxtaanal ñaar yépp yaa ñu koy waxtaanal walla am na sunu baay bu ñuy wax Ibrahima Diallo baax lool macha allah ñi fi nekk yépp baax ndaxam mais ñu koy seede ci jikko yi rafet yi mu am moom daal boolekat la puso la boo xam ne macha allahu dafay dox di ñaw rek muy ku bëgg lu baax te saxoo ko daa iman bi ñu waxee mu ni cër bi la ñu bëgg ngeen séddee séddale ko ñu ngeen séddoo ko kii jël cër bi ci jël bi ci biir waxtaan nag seen mobilisation rafet na rafetaay goo xam ni maa ngi sant xale yi li ma fi bëgg a wax tey yépp ci xale yi ak yéene bi ma am ci ñoom mu mel ni sama làmmañ lay waxee mais nag ñun ñoo bokk yéene ñun mag ñi fi nekk yépp ci koñ bi wax dëgg yàlla ah kon nag ay jullit buñ booloo rek am doole lii ngeen def nii du lenn lu may dañ koy delloo ci aljamaatu rahma kon nag doo leen ci jëlee lenn lu may yërmande ak yàlla comme nag damaa bëgg a tënk bañ ma ko waxee dama ni kenn du jox duñ ma jox fukk ma jël fukk comme c'est la première fois pour seen jotaay taaru damay tànn ñoo xam ni macha allahu ci sama oyof ñoo ma gën a fasaa comme nag ñoo ma gën a fasaa. nga xam ni sax xëy na yaakaar nañu jibril intellectuel la boo xam ni aalimu kullu fadin la fekk yoo yàlla dafa dogal moom daanaka xamul dara loolu laa leen mën a wax comme nag yéene bi mat na ma ne rek naa ko delloo samay nit kii sama doom la xëy na jotaay bi xat na duma ko mën a présenter ñëpp mais maa ngi taxawaayam ak taxawaay ñi nga xam ne daa iman ñu koy gunge ñuy oustaz Thiam ak kii di Ibrahima jàll kii nag sama nit la ami d'enfance la tubaab bi wax defe naa yàgg bawul dara dañoo ànd ma xam ko xam total boo xam ne ci boppam c'est un la boo xam ne ci jamono boo xam ne daanaka wër na àddina bi mais yaakaar naa fi mu mujjee mooy Égypte ba mu demee Égypte jàng ba am macha allah ay diplôme am dikk fii doon ko oyof toll la nag ah yàlla rek a xam jàmm. kon nag bala muy yëkkati kàddu nga xam ni jox naa ko lépp ak sama doom ji yéen ngeen rafetul lool rek ndax yéen a ma ne woon yow la ma ne nag ñoom la léegi nag comme jotaay bi xate ne nii damay tënk rek moom loolu laa leen war a mën a wax ci moom nit la koo xam ni intellectuel la boroom xam-xam la macha allah kilifa la imaamu ratib la imaam la boo xam ne titulaire la ci jumaa ji nga xam ne mooy jumaa Arafat yàlla dogal na macha allah bu yëkkatee kàddu di ngeen xam ni macha allah li may wax lu nekk la ndax du ma seede nit lu nekkul ci moom wa ma shahidna illa bima alim na may ziyaare mbokk yi su ko defee nag comme temps bi xat na temps dafa cher ma bëgg ñu taataan. comme ni ngeen taataane woon rafetlu naa li fi jiitu xëy na fekke wuñu ko mais wallahi xam naa ni ra bi xale bii di wax muy euh, Traoré Amadou sama rongañ tuuru na dama am kerse rek tuuti ma jooy ndax dèjà xooluma sax di waxu ustaas rek mais li mu wax sax tem la li mu wax tem la boo xam ne wallahi alim ku ko développé rek mu nekk njëriñ kon nag mbokk jullit yi foofa rek lay tënk eh, xabaabal baaxul su ko defee li mu indi mu won ñu ko te yàlla tax eh, def ko ci xol yi ñu taataan bi eh, barakati shahru ramadan mi nga xam ne heureusement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 te yàlla rek tax eh, man ji bi wax dëgg li ma sama xarit la yàgg nañu lool moo tax sax ma nangoo ñëw waaye man dafa am benn jot wax nekk nii dafa ñu bay dafa ñëw ne moo trois heures ma dafa déedéet dañuy firi alxuraan kon fu mu rek ma ñëw wax naa bari quatre heures laay pare mun na ko ci ak rek ñëw eh, Eh, maa ngi ko wax léegi nag li ma li ma bind day xam nga sax man daal dafa ma woon ñaar dafa ma woon ñaari thèmes yëpp ngay ngay ngay boole moo tax man ma gënoon a bind sax jëm ci beneen bi laa gënoon a bind di tënk tuuti rek ci wàllu eh, ci eh, tëkkandoo kon danañ liñ tënk liñ tënk ci tëkkandoo rek danañ ko wax ndax tëkkandoo dafa nekk loo xam ne lii lu borom tabaraka taala fonk lool la yeneen bi yoo xam ne ñu ci borom xam-xam yoo xam ne ñu ci bëri bëri eh, waaye liñ ci wax dañ koy tënk rek bu ñu waxee dëkkandoo nag dafay yaatu ndax dëkkandoo doomu aadama dafa bëri lu dëkkandoo yi mu dëkkandoo ñoom ay dëkkandoo la nekk te lu ci nekk nag war na caa def ñoom jekk même bàyyi mi nga xam ne moom ñoo ma nekk sax dëkk ay dëkkandoo lañu kon bàyyi ma yooyu am na àq boo xam ne bii war na ko def ak ñoom te àq boobu kat eh, danañ ko ko laaj ndax gis na ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na dem ci benn eh, dëkk mu ñëw ci teen bi benn gëléem ba teg ba teg ko bopp bi mu laaj daanaka moom gëléem yi ñu dem ba gëlëm gi dañ ñëw woo ko moom mu woo ko mu ñëw ma ne ko sa gëlëm gi de mi ngi lay jàmbat ndax nee na daf koy liggéeyoo liggéey bu métti te doo ko jox mu lekk doo ko jox mu naan ah, kon loolu dafa ñu wane ñooñu it war nañu def ak jub tey gis nañu ne am na benn jigéen boo xam ne bii. jëflante bu jëflante woon ak benn muus yeewu ko bañ koo jox lekk ba mu dee ci loolu ci la ko yàlla yëpp safara gis nañu it koo xam ne kii ci jëflante bu jëflante ak benn eh, bi gis ne dafa soxla naan ni mu ko soxlaa woon mu jéem fexe fexe bi mu defoon ba naan fexe ba def ko xaj bi loolay yàlla yóbbu ko ci aljanna kon loolu day wane ne ñooñuy dëkkandoo yàlla digg nañu ñu topp toppatoo leen comme ni nga xam ne noonu lañu toppatoo ñëpp dëkkandoo la suñ ko baxee te moom la arab di wax aljaar aljaar nag ci luuxa maanaam ci langue arab bi suñ ko waxee dafay am ay maanaa maanaa bi ci buñ ci tëggin wi mooy eh, li ñuy bëgg a jëkk comme àq dëkkandoo la ñuy wax fokk ñu jëkk a wax àq àq ci luxa mooy comme ñu ne ak ah, mbir diw day mi wala dëggal na ko ñu di ko wax su ko defee master bi ñëw nekk xaqan aw xuquqan wala mu nekk sax naan euh, lu wér la wala lu sax la wala lu dëgg la yooyu yëpp ci ci àq la lay lay lay teg moo tax ci foofu buñ ko seetee ci wàllu loxo bi loolu moom la alquran yi wax ne li yundira man kaana xayyan wa yuxiqa alxaq wa yuxiqa alqawl ala alkafirin loolu kon xàq boobu muy wax foofu loolu lañu dañuy wax ne yuqaalu yaxiqu alayka kaza wa kaza an tafaala kaza wa kaza loolu it ba tey ci baatu àq bi la ñu dem ci li nga xam ne mooy baatu jaar jaar la arab di wax mooy dëkkandoo bi huwa al mujaawara fi sakkan mooy koo xam ne kii dafa dëkk ak yow ci dëkkuwaay koo xam ne kii buntam dafa jàkkaarloo ak sa bunt tëggin bi nekk nekk ci baabu xaatala ismu bi nekk aljuwaar muy ne bu fekkee ne nit kii dafa taqaloo yow kër jële leen ci ku ñu wax saalab ibnu arabi mu wax ne aljaar huwa allati tujaawiruka mujaawaratan bayt bi bayt mooy ki nga xam ne ki dafa taqoo yow kër kër gi nga xam ne dafa kër kër ñu taqaloo moom nee na mooy dëkkandoo léegi nag mu am dëkkandoo boobu nag borom tabaraka wa taala ak yeneen bi ñoom ñëpp ñu wax ci ay wax eh, ci ñu rafetal jëm ci ñoom rafetal maanaam ngëneelal rafetal jëm ci dëkkandoo ci sharia al islaamiya sharia bi digal nañu ñuy sàmmoonte ak ak dëkkandoo sàmmoonte ak bu baax ak di def ak rafet ak bañ a def ak ñaaw ci moom wala bañ def ay loraange ci moom bañ na ko ba da koo da koo lënkale ak def lu mbaax ci jaamu yàlla wala tax ci ay wayjur mu lënkale ko moom yàlla ne ibudullaha wala tusriku bi shay'an wa bil walidayni ihsanan وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم والله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا borom bi ne ci lëkkale bu mu lëkkale ñoom ñaar yooyu mu ne kat na ngeen jaamu yàlla te bañ ko bokkaale tey na ngeen def ak rafetal ci seen ñaari way jur te xam ngeen ne ñaari way jur mooy première dëkkandoo ci doomu aadama première dëkkandoo bi doomu aadama mooy ñaari way jur ñoom ñi nga xam ne ñoo la meññ yoon yàlla ba nga nekk mag kooku ñoo ñooy gën a ci moo taxoon yàlla na la na nga leen fonk bu baax na nga suufeel say mbagg ci ñoom na nga suufeel say mbagg ci ñoom te waaye wala wala taqul lahuma uffin uf rek kalimatu uf rek nee na bu leen ko wax léegi nag waaye nag mu na la nag wa in jaahadaaka alaa an tushrika bimaa laysa laka bihi ilmun falaa tutiihumaa ah bu leen wax dara na def ci ñoom ak rafet nag waaye nag bu la bëggee bokkaaleloog yàlla nag taxawal bul def bul nangu bul nangu de foofu moom ah, lee lañ doon bañ waaye li la dañ doon bëggoon nga rafetal ci ñoom bañ nga def ci yaaw ñoom bañ ngay bañ jaar seen ndigal waaye nag fii nag dafa gën a diis te borom xam-xam yi dañ ne eh, yuxtamalu aqafu dararayni yuxtamalu aqafu dararayni loolu ci mi ngi bokk ci li nga xam ne moom la borom xam-xami usul yi di wax ay seen qaayida yi yuxtamalu aqafu dararayni mooy lan ñaari loraange suñu tasee da ngay seet bëgg na oyof nga appliqué ko maanaam tey ci wax bu fekkoon ne dañ la au lieu de la jaanal bi te euh, euh, kaasu sàngara bi wala ñu rey la ah da dañ laan la naanal kaasu sàngara bi soo nekkoon ci àll xiif ah gisoo loo lekk lu dul métti dañ naan la lekkal ci métti bi yëpp lu ci ba baa ngay am leneen loo loo loo loo mën a remplacer waaye ci loolu nag dañ ne al dañ na léegi ah, bañ biñ ne almasaxatu yuzaal ñu ne waaye almasaxatu laa yuzaalu bi mislihi danañ ko dindi mu ne lépp loo xam ne dafa andi coono wala dafa nekk loraange dañ koy teggi ñu ne waaye nag duñ ko teggee lu mel ni moom lu mel ni moom mooy lan buñ la allumé woon allumé woon ak pistolet ne la reyal diw mii wala ma rey la sariya daf naa la déedéet doo ko rey bu ko rey bàyyi ñu rey la ma garanti la aljanna waaye bu rey kee parce que li tax bakkan la doon sowee te bakkan moo na a demaat kon ñaari bakkan yu fay yëpp yëpp kon bi ñu ólime ne bàyyi ñoom ñu ko waaye moom na moom na xaar borom bi tabaraka wa taala moo koy euh, fay buñ ko reyee moom moo koy garanti yóbbu ko aljanna kon loolu seen xaar ci seen xaayida la moom rek laa ci doon laa doon leeral noonu kon eh, te lënkale na moom yàlla def ak rafetal ak jaamu bu ñu koy jaamu ci eh, dëkkandoo loolu moo ko borom tabaraka wa taala moo ko wax ci alquraan bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it daal di wax ne maa saala yusiini jibrilu bil jaar xatta sanantu annahu sa yurisuhu mu ne yeneen mu ne jibril daal dañu di ma dénk mukk ak dëkkandoo ba ma yaakaar ne sax dëkkandoo dafay doon morom ba ma yaakaar wala ma yaakaar ne mukk dana ñëw benn bis nekkat dëkkandoo dafay doon morom ma loolu li muy wane mooy rëyaay bi nga xam ne bii ak ko dëkkandoo rëy na ko ndax yeneen bi waxoon na ba tey ah, ne wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min saxaaba yi ne ko waaw kan ngay wax noonu yow yonent bi mu ne doom ne yonent bi dafa génn ne wallaahi du gëm wallaahi du gëm wallaahi du gëm ñu ne ko waaw yow yonent bi koy wax ne du gëm mu ne koo xam ne kii dëkkandoo xam du mucc mukk ci ab musibaam du mucc mukk ci ab musibaam kooku day du du du du gëm moom day wax jëkk bi mu ne wallahi wallahi laa yumin wallahi laa yumin qiila man ya rasulallah qaala alladi laa yamanu jaaruhu bawaa'iqahu ki nga xam ne kii eh, dëkkandoom du mucc mukk aw xayam kooku daal du gëm mukk ba tey gis nañu ne eh, nee nañu ba tey beneen hadis boo xam ne wax ne du gëm ñu ne ko kan la mu nekk man baata sabaanan wa jaaruhu jawaan koo xam ne kii dafa fanaana rekk dëkkandoo am xiif loolu te ñun loolu duñ koy bàyyi xel maanaam ñun li nga xam ne moom lañu gën a bari def mooy ne sa dëkkandoo bi nga xam ne jot loxom jotut nga naawam léeg-léeg sax am ñu gën a sàggan yoo xam ne dañuy yebal xale ne ko demal xoolal ma sa kër di mbay di ñoom wala sa kër yaay di ñoom lan lañ togg bu ko demee bu a oyof mu di dikk ne di nangam lay su ay dañoo am dara ñoom day tey deful ne dañuy deful la fekk rek loolu loolu woon la ko waroon mooy ne ba mu dem xale bi demee ne ko ah ñeene yi nangam nangam mu daal di xam ne dañoo néew doole mu génneel toll ne lañ waroon a dépassoo jox leen ko ngir yàlla te loolu moo moo gën moo gënoon li nga xam ne def wala doxantu xaale fa xam ne ñi néew doole la mu doxantu xaale fa nuyuwaale daal di jël dara lu am solo jox ko ko daal di a dem sa sa yoon loolu boobaa yàlla dana ko defal euh, yoon boo xam ne bii yoon bu rëy rëy la loolu dañuy yàlla sant suñu diggante ñu. Euh, di jàppalante ci biir dëkkandoo yi boo balee nga bañ koo jëmale ci sa kër dëkkandoo bañ di def loo xam ne ni lépp loo xam ne ni bëggoo ko rek nga bañ ko def sa dëkkandoo parce que yaa yeneen bi def ne nit ki balay nekk julli dëgg dëgg dëgg rek dafay bëggal moroomam la mu bëggal boppam loolu nag am na am na benn borom xam-xam bu ñuy wax ibnu muqafa euh, dafa amoon ay janax yu ko sonaloon lool ci këram ah mu njàmbat ko benn waaye mu ne ko ah da jël benn muus nga yóbbu ko fa mu ne ko ah man dama damay bañ ne ma su su ma kër gi janax yi danañ yi te kon bëgg defal bëgg naa saa bopp loo xam ne lii bëggoon bëggul ma leen ndax bëgg naa janax bañ fee am te ba pare dem na ci seen dëkk yi xam nga seetal loolu kooku maanaam boobu gis gis ci wàllu dëkkandoo boo xam nga ne dëkkandoo am na it benn si ndaw su xam ne si eh, wala benn waay boo xam ne dëkkandoo bi da ko doon lor ki mu dëkk koy lor lor lu métti lool mu ñëw ci yeneen bi wax ko yeneen bi da ko mu ñël mu di ko def loraange yu gën a métti yeneen bi da ko mu ba muy ñetti yoon yeneen bi ne ko boo demee jëlal say bagage rek ngay sànni ci biti da ngay jël say bagage rek sànni ci biti ku la ko bu la waxee yow loo def nii nga ne ko man de sama dëkk déw bi moo may loo rek ah moom bi mu def rek benn bés ah dëkkandoo di lool ko comme ni ko doon loolee rek mu daal di jël bagage yi di commencé di xalam ci biti di xalam rek ñi ñi fa na ko ayoo li li li lan la mu ne ko def sama dëkkandoo bi moo a sonal lu neex damay def lu damay def gars yi ñoom nag ñi rëbb dëkkandoo bi naan ko kii moo bon kii moo naan léegi nag dëkkandoo bi di dégg loolu mujj bi mu dem jëlaat bagage yi wa bagage yi waa ji di génne jóg di ko dugalaat ne ko wallaahi dugal dutuma la lor mukk ci àdduna xoolal boobu indi ci ba tey am na benn borom xam-xam boo xam ne bii dafa jënd euh, dafa dafa am ku mu déléguatoon kër léegi kooku yor étage moom nag étage bi kër gi ci moom lay ci këram lay féete si moom toujours ci kër gi ci kër gi lay toog di waxtaan kër kër ak étage waa ji ñu dem ba si yàgg nag bu jëmi jamono ah xanaa ah, mbiram àdduna dab ko man amatul la man lam amoon amatul ko eh, mënatul la mënoon mu bëgg nag jaay kër gi pour daal eh, jënd feneen pour eh, man cee toog boppam ah bi ko waa ji na kat ci diw mi day jaay kër gi mu daal di dem laaj ko mu xamal ko mu daal di jël kër gi jox ko ba pare na ko toogal ci kër gi ndax man sa kër gi toujours ci laa daan noppalu xoolal rek boobu ci boobu àq rek ak boobu bëgg koo xam ne gii bëgg na ko lu baax ak bëggal dëkkandoom lu baax tax mu def yu mel noonu loolu nag royukaay la yoo xam ne yii ñun war nañ ko di roy ci ñi nga xam ne ñooy eh, topp àqu dëkkandoo ndax àq àq du dunde àq yeneen bi dafa wax ne sax boo doon indi sëriñ ci sax te ngay nëm te xam ne mun ta jotee ci bi nëm ko nëbb su ko defee boo ko nëbbee ah duñ ko gis nga dugg ci biir jox say waa waaye bu ko jël rek waneewu di waneewu su ko defee xelam ñee ñekk ci xale yi di sonal seen papa yi papa jëndal ma ni papa jëndal ma lee la fekk yow yaa tax ñu loola am loola yeneen bi def ñu koy dawloo même euh, euh, Abdullah ibn Omar bu daan rey ngàtt dafay wax euh, ki koy feesal na ko na nga commencé boo paree na nga ci sama dëkkandoo yi maanaam pour séddale Eh, dawal bi mu séddale ko commencé ko ci dëkk ñi ko gën a jege ci dëkkandoo yi ba fu ba fu yem waaw bu toggee sax même bi nga xam ne mënu leen a jot dana jël ci ñeex mi jox jox leen ndax rek eh, loo bëgg rek eh, gën a def lu baax ci sa biir dëkkandoo ndax def lu baax ci biir dëkkandoo dafa am solo lool yàlla xéer nañu ci yeneen ci biir xéer nañu ci kon nañu koy góorgóorlu di ko jéem a gën a def

bon euh, bu fekkee ni dégg nañu wax ci mooy jeune dafa war a lijjanti imaanam ba xam naka lay war a mën a taxawee ci société am ba société bi mën a dox waaw euh, Leuz wax na fi mbiru société bi bon ñoom lan la ñu jublu ci seen mouvement bi mooy éducation et lépp loo xam ne nii ëmb na éducation bon suñu papa ji suñu imaan euh, suñu imaam bi tamit moom itam wax na ci mbiru àq li mu jot ci mbiru wax ci mbiru àq mooy toujours nit ki am na benn rôle boo xam ne nii dafa ko war a jouer par rapport ak ki nga xam ne kii mooy jege ñaaleem pour ne pas dire dëkkandoo mais ci geneen fànn bu fekkee ni léegi dañ ko contextualiser dañ ko indi léegi ci suñu jamono waa parce que léegi suñu jamono léegi ñun dañu dañu nekk léegi ci beneen monde parce que nañu xam ne aussi état bi mu ngi taxaw fële les droits de l'homme ñoom ñëpp ñu ngi taxaw fële xale am na àq diw am na jigéen am na àq ku nekk am na àq léegi lan moo ci taxawaayu jeune bi nga xam ne nii bëgg na taxaw taxawaayu islam bi nga xam ne nii yow da nga koy prôné oustaz loolu daal moo doon suma question par rapport à ça ma gàttal. laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka antal aziizul hakiim. Euh, sant man la waaw xam nga ar rasul sallallahu bu muy dem. bi mission bi jeexee war a wuyu borom bi dafa ne maa ngi dem mais maa ngi leen di bàyyil ñaar yoo xam ni boo leen ci tegee seen tànk doo leen mus réer ci yoonu siraatu mustaqim ngeen di tegu mooy téere yàlla ba ak sunna su rasul sallallahu alayhi mu ne fekk ñu ngi génn ci ñaar yooyu rek fu ñu mënta dem rek dañuy sonal suñu bopp loolu moo tax bi lislaam wala jullit ñi bàyyee seen yoon jël yoonu nasaraan bi loolu moo tax nasaraan yi lépp lu ñu tëral rek force jullit yi fekk si nasaraan bi kon nag ñàkk eh, eh, eh, doxalee alquranu karim dundal alquranu karim ak suñu seen bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax li tubaab yi créé ñun ci loolu la ñuy wéy ci loolu la ñuy wéy te borom bi moo ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana man maa andi njool màkk sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma teg ko ci seen wet mu nekk ak royukaay mu nekk ak référence boo xam ni képp ko ko roy di nga tegu ci yoonu siraatu mustaqim léegi ne bi gars yi seen mbir mu yooyu nag ay droit de l'homme ak droit de femme ak nu mu rek ay ak kii yëpp yooyu yëpp nasaraan yi ñoo ko créé mais loolu islam waxu ci dara kon nañu jël li alquran wax ñu jëfe ko ñu jël lu nga xam ne sunna moo ko wax ñu jëfe ko salaamaaleykum wa rahmatulah. xaaral mu dolli ko ci loolu. ci li yi nga xam ne ñoo dëkkee Afrique maanaam ñi nga xam wala ñi nga xam ne ci wàllu islam la ñuy ñoo waroon def nga xam ne fa la ñuy defee yi nga xam ne moom la ñuy def ñu nekk ñu di fa nekk nga xam ne dañuy bokk ci biir euh, ñi nga xam ne ñooy taxawal yooyu bu ñuy wotee lu ñu bëgg a wotee ñu xam ne lii. dak islam d'accord ci ñoom seen diine d'accord ñu ci ñu wax ne leen léeg léeg lii nii la demee ci suñu diine mënuñ ca dem su fekkente ne mën naa nekk rek su fekkee ne boobu ñu su ko defee ñu waxtaane ko bu fekkee su ko defee loolu du mën a wéy waaye fekkee ay tubaab bi kese ñoo koy ñoo koy taxaw ñoom la leen la la leen ne léeg seen yëg-yëg rek la ñuy doxal te seen yëg-yëg boobu comme ñoom dañoo ñëpp dañuy bëgg ne dañu jàpp bu buñ ko doxalee ñëpp dañ ko war a appliquer bu boobaa dañuy daal di commencé lor ci islam moo tax loolu eh, ñun li ñuy bu boobaa nga xam ne léegi dañoo nekk ci kaw dañoo teg loxo li ñuy def mooy yar suñu doom ci kër yi rek parce que xale bi eh, li ñuy wax rek su fekkee ne li yonent bi doon wax soo taa soo ko tànnalee yaay ju baax soo tànnee yaay ju baax yar doom ba dana yomb lool ndax data bi nga xamee ni bii moom lay ànd ak yaay ji mooy gën a bëri ci bi muy nekk ndaw yaay ji dana ko jaarale ci yoon bu boobaa comme yaay ji nitu diine la mu ngi ca mu ngi pratiquer diine bu baax dana ko jaarale yoon boobu su demee ba gën a màgg ba gën a màgg yow itam nga daal di participer parce xale yi léegi dañuy teel a yeewu yow itam foog nga gaawantu boo leen boo yéexee rek ñu jiitu la buñ la jiitoo rek buñ la jiitoo rek pour nga wàññi leen day daal di jafe waaye loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax ci julli te mu bañ julli kenn bàyyi ci kenn bàyyi ci benn waxtu dafa daal di ne xale bi kat su tolloo ci juróom-ñaari at rek boo jullee ci ne ko jógal julli boo jullee ci ne ko jógal julli xam nga foofu maanaam amul dara lu ko sariya tegoogum waaye xale bi danaa def ci xelam ne lii kat sama papa heure muy dugg di di ma ko def loo kon am na solo dana dem ba tax sax léeg-léeg yenn xale yi boo yéexee julli sax ñu naan la papa heure bi jot na de heure bi jot na papa loolu nag la ci yàlla bëgg mu dem ba miin ko ba nga xam ne bu heure buy buy ma sœur day ànd ay ànd ak moom nga xam ne benn waxtu ci àdduna du ko bàyyi ba mu juddoo ba ni mu ba ni mu kii benn waxtu bi mu ko waree ba lim koy wàcce maanaam rot roogi di rot du ko bay ci àdduna ci àdduna bi boo xam ne defu ko loolu ñun loolu ci lañ mën a doxale léegi nga xam ne dañuy yar suñu doom yi yar bu rafet fexe ba ñu xam seen diine fexe ba lu mu yées nañu xam lu ñu mën a jullee lu mu yées yées ay jikko yu rafet yi nga xam ne yii moom nga am yow baay bi fexeel mu dugg ci moom fexeel mu dugg ci moom nga di ko woo di waxtaan ak moom di koy yedd di koy teg ci yoon ba nga xam ne leneen lu ñëw ci boppam lu jóge faneen bu ñëwee ci kaw rek lay aw jàll day mel ne peron buñ peron rek ndox mu ñëw day aw ci kaw rek jàll waaye su dul rek lu ñëw da koy yàq parce nit léegi dañu am réseau yoo xam ne yu bëree bëri bëri la yoo xam ne dafay yàq doomu aadama yi ni réseau yi ni muy dim ni muy jëw ni muy dimbalee doomu aadama yi noonu lay yàqee te li yàq moo ëpp bu boobaa nag balaa yooyu yëpp di yàq day fekk moom pare nga ci moom bu boobaa nag du lu ñëw ci kaw rek lay aw du ko mën a yàq ma daal loolu laa ci yaakaar ci loo xam ne mënees na ko cee euh, moytuñu ko ci sa. Euh, macha allah lam yadul bashar lil muntaqa xayral wara muhammadu rasulillah yonen way naa la kay naa la muhammadu rasulillah baayi fatimata bintu rasul muhammadu rasulillah yonen ana soppay rasulillah muhammadu rasulillah na soppey yonen muhammadu rasulillah yaa jara way ku la xam-xam ku baax ku la kañ-kañ ku baax muhammadu rasulillah yonen way naa la way naa la kañ naa la yonen yonen yonen yaa jara xam way naa la kañ naa la yonen yaa jara kañ ana toppee rasulilah yonen naa la kañ yaa jaraqam muhammadu rasulillahi lam yakun bashar lil muntaqa xayral wara muhammadu rasulillahi maanaam ñoo ngi jégalu dañ na woon balaa ñu koo def fu nit mu jóg ci xolam ci yërmandeem mu jox moroomu jullitam loxo ne ko baal ma fépp nit toog na jox moroomu jullitam lépp ci cadre defar la ndax xale yi lii ñu woote kat loolu moo ci war a jiitu waaw dañ maa dégg may wayantu rek ñu ne ma dañoo bëgg nga jaar fa way ala kañaala muhammadu rasulillah yonan mustafa ñu dugg si ñu dugg si ñu dugg si ana soppe rasulilaay. macha ku la way way ku way naa la bëgg naa la soppe rasulillah muhammadu rasulillah yonen wi bëgg naa la ba am fierté yonen way naa la yow yaa leen gën yaa leen man yaa jara way ba dee xayrul anbiya muhammadu rasulillah yonen bi asalaamaaleykum ñoo ngi leen di gërëm di leen sant maanaam di ñaan lii yàlla na jëm kanam maanaam mébét bi ngeen ci amit muy asas bi yàlla na leen ci yàlla jafal ndam yàlla na leen ci yàlla suturaal maanaam sànq seen njiit dafa wax lu am solo ma ne ko dangaa won sama lor waa dafa am jamono maam Abdou Aziz wax lu am solo te xale yi dañ ko war a bàyyi xel maanaam man de fu ma dem danaa ko fa wax yaatalaat ko fa dafa wax ni Sénégal ñu baax ñi ñoo ëpp ñu bon ñi kon soo ko mënee baax ba raw moo gën waaw amul xale amul mag baax pour ñëpp la waa sanq seen njiit dafa taxaw fii wax lu am solo mu ne tokkatu yàmbaa yi ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci naka sudul noonu ubbil nañ leen bunt bi pour ñu ñëw ànd ak ñoom liggéey liggéey bi kon loolu ah lu am solo la moom moomu kat ñoo ngi ñaan mu gudd fan ndax loolu mu xalaat xalaat bu rafet la waaw bul complexe neel asos bii dama cee war a bokk def ni Pape def def ni Ousmane def def ni ablaay def bu ko defee mu dox jëm ca kanam loolu moo waral asos bi am kon maanaam ginnaaw bu loolu weesoo ah li ma leen di dénk yéen waa asos bi maanaam nit doo ko raw ba pare di ko gestu lu ne ngay dégg lu ne ngay gis waaye da xam ne lii ma dëgmal dara taxawul ma dëgmal ko damaa bëgg ngër gët ma am ci ngërëmal suñu borom moo tax ma dëgmal ko lépp lu waay di wut nag di ca bëgg sàkku ngërëmal suñu borom maanaam doo gestu kenn ku ñëw rek fekk la ci àndal ak moom ngeen dem waaw maanaam mënta ñàkk ndax dafa am loo xamante ni maanaam force ñu def ko wax ko waaw góom da koy laal. ñoo tagg yeneen bi. waajal affaire organisation mu ngeen préparé woon parce bi ñu wax ci ñaari baat rek jëmale ko ci kilifa yi nga xam ne ñoom lañu fekk ci jotaay di suñu waajur di suñu sëriñ di suñu imam imam Diouf tabarakallah ak suñu imam Silla ak oustaz nga xam ne ñun ñaar. li ñuy ñaan kenn lañu ndax suñu xamee tabaarakallah nii lu bëri yàgg te leneen la ko dund yonent bi ak diini léeg-léeg damay dem sax ñu may jaawale ak moom moom itamit dina jaar bërëb ñu jaawale lañu kon loolu sant yàlla rek la ak mu dal xel bu ñu nee nit ñoo organisé yi ñu ne ay xale yu dëkk ci koñ ak seeni mag ak seeni waajur kon loolu day léegi ne rek bi doon nañu benn te nit ku nekk nag ñaan nga yàlla koñ ba nga dëkk ñu doon benn ndax yonent bi da daan wax ci dëkkandoo di wax ci dëkkandoo ba xëy génn àdduna kon yéen ñu doxal suñu soosu nga xam yonent bi moom la wax nañ ko doxal muy dëkkandoo lu solo la ndax kenn ku ci nekk am nga sa mbokk yaa xam fu mu mën a nekk mais lépp lu mën a xew balaa moo taxaw bu koñ day taxaw ba pare kon lu jar a sàmm la lu jar yitteel la yàlla ñu yàlla defal jàmm seen mbooloo mi yàlla ci yàlla teg loxoom yéen bi ngeen ci am yàlla ko yàlla mottali ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm sunu bàyyi El Hadj Siis di suñu nijaay di ko ñaanal moom it ñoom ñii ñoo ñu ci tàgg yonent bi wax dëgg yàlla Umar moo ma nee fii ma ne ko naa fi jaar ndax am naa feneen fu ma waroon dem te maa ngi nii laa jóge waaye sant yàlla lépp mission yonent bi la te bu ko defee ñu barkeelu lu rek lamin mu doxtu muhammadan bi maqaalati لكن مدحت مقالتي بمحمد لئن مدحت محمد بمقالتي كالبيرنتي لكن مدحت مقالتي بمحمد ana mu fi gën a bëgg sayyiduna muhammadu lay maratu muhammadan bi maqaalati yow yenent li laa laakin maratu maqaalati bi muhammadi sharha yabda si malik ne bu taa illusuli na najaatu هو هان للخول يوم اللقاء شلها جبل سمال اثنين حكمتها للمسلمين نجاة وأمان من خول يوم اللقاء شلها جبل سمال اثنين إنه البلدي خالة لحمي ولزادي وتمنون ريائي هذا شوقي لخم خير البرايا أنا كم بينتي مسعد في أكرم القرناء شل هجر نسي مالك دانا هو بيتي وذنبي وأتيمي ومقامي ومروتي وسلامي شرها جبل زمان من هرمي مزهري مزابي ورقني حجري قبلتي وقار القران ماي ني سما غرام باخ دي سما غرام غادي bon lii ñuy def nii moom miin na ndax yàgg nañu ñëw ci këram di ko tàgg yonent bi yàgg nañu am programme di ñëw ci këram bu ñuy teral kon kanam ñu ngi lay ziar baax di la jox sa wàccuwaay la ñaanal yàlla di nga bëgg yàlla xam yàlla na yàlla defal ndax ñu ñu yëg rek ñu yëg ndax yonent bi moo ñu woon kon loolu baax a baax. wa maqaami wa marwati wa samaayi yasribi xubbati xubbaaya baqiiqi uhudi sufwati wa kanzul inaayi ku sopp Sëriñ Tuubaa dafa ni maay masak baar xam nga li tax ma wax loolu dama xam ni fii murit baa ngi fi Maadur baa ngi fi Tijaan baa ngi fi Laayeen baa ngi fi bu ma taxee wax ci waaw ba dem nag day xaw a nuru leneen kon moo tax ma ne ku bëgg Sëriñ Tuuba defal lii ñu màggal bàyyi ba sag baara maa ngi dend ak Cheikh góor gi taawloo mu safa cat noo mu tada maam Bamba nee na lam سرا وجهرا في البرايا سمدي مدلل الإسلام والكفر ما سرت بالينا لم يلد مثل المصطفى محمد سرا وجهرا في البرايا سمدي ku sopp barxaama ñas defal nii ñas kumba abdallah ana sobay mbay ñas a ñu ngi fi leen ma dëxës kayfa tarha rutliyatal anbiyaa يا سماء أنات ولد سماء sallallahu alayhi wa sallam كيف ترها رقية الأنبياء يا سماء مات ولدها يا سماء أنا كفيك نبقي صلى الله عليه وسلم كيف ترها رقية الأنبياء يوم يمن هي سماء مات ولذا سماء صلى عليه وسلم لم يشاوك في أولاك وخدها لسنا منك دونهم وسناء صلى عليه وسلم إنما مثل صفاتك للناس يوم الماء صلى عليه وسلم أنت الإسباع كل فضل فما تس دور إلا ذلك الأدواء صلى عليه وسلم لك ذات هلوم من خالب خيب ومنها لآدم الأسماء صلى عليه وسلم للكون تختار يوم لك الأمهات والأباء صلى عليه وسلم bu ko defee foofu la ñuy taxaw rek ndax amoon nañu yéene toog waaye yàlla xam na ne am na fu ñu jëm nii ci yàlla teg loxo ci barke yonente bi dañuy sant yàlla kii bi ñu taxawee di tàgg yonente bi jaam la jaam ci barke yonente bi sallallahu am na solo trop eh, xam nañ ne suñu waajur eh, yàlla dafa bañ ba nga xam ne bii dafa lëkkale ne ak jaamu bi waxee ne na ngeen ma jaamu rek dafa daal dina wax ne na ngeen def ak rafet ci seen way jur kon way jur dafa nekk loo xam ne lii yàlla da ko ba nga xam ne bi eh, ku daan ñëw ci yeneen bi di ko wax ci dara dafa lay fokk muy delloo la ci say way jur am na ñoo xam ne ñii seeni wëyjur ñoo leen yar yor ba indi leen ci loxol yonent bi sallallahu alayhi wa pour ñu mu yar leen pour rek ñu am yar boo xam ne bi yar bu baax la comme ku mel ni Anas bun Malik nga xam ne bi mu tolloon ci fukki at ci la ko yaayam ŋàbb ba ci loxol yonent bi sallallahu alayhi wa mu jox ko ne ko dama bëgg nga ñaanal ko mu yor ko mu di la liggéeyal mu yor ko mu di ko liggéeyal yeneen bi daal yàlla fu mu bañee rek mbiram way jur mooy foo xam ne daf lay daf la daf laa bëgg a puus nag ci ak mooy yàlla comme ni nga xamee ne ñenn yenn ci saxaaba yi noonu la defoon dikk seen tuub seeni way jur na leen kat bu fekkente ne demoo tubbi man duutuma lekk duutuma naan duutuma nekk ci ker damay nekk noonu ba ba dee waaye bu dikkee ci yeneen bi yeneen bi dafa ko da koo toppal ci sa sa borom bul ko topp ci ci lu mel noonu kon loolu mooy waaye leneen lu ko mooy waajur ak nu mu mën a doon même bu fekkoon doon jullit da ko war a toppatoo ci li nga xam ne mooy àq bi dox sa digganteeg waajur da nga koy jox ba mën sëkk ak nu mën a demee li feeg loolu nekkul mooy yàlla rek bu boobaa da nga ko war a topp waajur daal gannaaw bi nga jaamoo yàlla mooy ki nga xam ne kii moo moom war a topp gis nga sax boo demee ci hadis bi wax naan euh, euh, sa yaay sa yaay ba muy ñetti yoon dañu koy dañ koy wax waaye dañu ñi koy borom xam-xam yi koy traité dañ dut bàyyi xel la jiitu ndax yaay mi ñuy tuddee yaay moo nekkoon jabar moom moo doon woon jabar baay bi ñuy tudde baay tey moo nekkoon jëkkër dañ leen a tudde woon baay la ak jabar la ak jëkkër mu ne woon jëkk jabar ji su fekkente ne doo woor nga sa weeru koor julli sa julli yu juróom boo toppee sa jëkkër danga nga dem aljanna léegi ah ñuy dem noonu kon njëkk kilifteef gi nee na ko boo ko toppee ci sa jëkkër ji rek incha allahu da nga dem aljanna léegi nag yaay kii boobu jabar moomu moo mujj am doom daal di nekk yaay jëkkër moomu it moo mujj am doom nekk baay kon favorisé wul yaay ji ci kaw baay bi waaye dafa def li arab di wax naan euh, maanaam da ngay ci kii bi xam nga xale bi boo ko bëggoon a wax ne ko bu àndoon ak beneen magam ñett wala ñetti magam nga ne ko dinaa la duma ba sa mag bële dinaa ko duma loolu lay arab di wax attaraqi min al adna ila al aala attaraqi min al adna ila al aala yàlla comme wax na waxoon na loolu moom ay waxam dafay nekk wax bu mat du wax di waxaat mën a wax boo xam ne bi bu waxee benn wax rek wax boobu day matale moo tax du wax xale bi ne ko toppal sa yaay toppal sa baay déedéet danaan ko toppal sa yaay rek comme nee na woon ne yaay ji na topp baay ba ca ba mu nekk ba mu ko waxee ca wàllu jëkkër kon duutu waxaat doom ji naan ko ci déedéet day bàyyi doom ji mu topp yaay ñoom ñëpp ñu ànd topp baay bi loolu mooy kii bi nga xam ne moo kii ñoom ñëpp ci ko baay la moo tax fi mu nekk nii xale su bëggee barke bëggee lu mu yuutu rek gaaw ko jot fokk rek mu fonk baayam fokk mu fonk baayam jabarit danaay wax toujours ne jigéen su xamoon yet yii dana ko moytu yii dana ko moytu mooy dana moytu jëkkëram di ko favoriser lu bëree bëree bëri dana moytu di di di def def ko def ko buur def bu jëm mbaam foofu maa ngi leen ci bàyyiloo xel parce fi ne foo ko fekk foo ko fekk rek doom ba yàlla dana ca wane eh, kéew maanaam bépp jigéen boo fekk ñun ñun jëkkër ja négligé ko favorisé wujju wa wujju wa mooy jur doom ji doom ju doom juy teg loolu lu wér la loo xam ne li am na dama ci gis benn ki boo xam ne bi benn benn mbokk la bu ñu doon fay li ci soxna sa léegi woy càmmin yi wax ñu fa benn wax boo xam ne nee na seen dëkk laa amee mu nekk loo xam ne lu yéeme la parce que soxna si dafa am ñetti doom ñaari doom yu mujj yi yàlla barkeel leen lool ki mag ki munta am dara te moo leen dàq liggéey fopp benn bés nag mu jooy mu mu dikk ci yaay ji mu ne ko man de yaay dama yéemu mu ne ko ah. mu ne ko man sama rakk yi maa leen daq liggéey fopp te man mënu am dara ñoom nag lu ñu laal rek yàlla barakel ko yaay ji dafa jooy ne ko nag say nopp danaa la wax dëgg bi biñ may may sa papa xale laa bëgguma ko lu ne def naa ko ba nga juddu bi nga juddoo nag ma ne comme xas naa dugg ci njaboot naa sëy rek te yàlla tax mu ne ko ñee ci loolu la juddu yow ci fii nga juddu waaye nag comme yàlla nga ko defoon te yàlla jógu fi bu soobee yàlla dana deñ xam nga nu mu dem dem ca géttam nga jël fa ngandam xaaf takk buum ci baatu ci baatam moom ci boppam de takk benn ci ci ci xaaf bi jox doom ñi ne ko yóbbu ñu ci pénc ma fay papaam nekk muy muy muy muy omat xar mi yaay ji raam topp ci kii bi ñii ñu naan waaw lii lan la lii lan la ba mu àgg ci pénc ma fekk fa yaay ji fekk fa baay bi mu yaay ji tuub ci kanam baay bi baay bi jël xar mi rey ko daal di ko saraxe waaye nee na waxuma xale yi ñoom doomi ndeyame waaye ne tund woo moo fa ëppale léegi tund woo moo fa ëppale léegi moo tax baay dafa foor lool ba ëpp du yaay nag dafa néew doole moo tax dafa néew doole te sonn ci lool ci doom ji mu bañ nag nga bañ koo négliger mu bañ nga bañ ko négliger moo tax mu insister ci moom waaye bàyyi dafa foor lool ba mu ëpp ndax dafa bëgg dafa doole ji mu amee ci ci ci ci doom ji noonu la amee doo doole jooju la moom la am ca yaay ji moom la amee ca kii bi parce que kenn ku ci nekk soo ko moyee soo ko moyee rek dana feeñ ci yow moom doom bi ak jàpp ak yaay ji yëpp soo leen moyee jëkkër ji rek bu boobaa problème dana dana da ngeen koy am yàlla dana leen nattu ci yu bëree bëri da ngay gis fii jigéen yu bare bëree bëri yàlla nattu leen natt yu métti ci seen mujj fekk na luñ doon doxale ak seen jëkkër yi moo ko waral bu fa jógee xëy na mën naa am sax li fii mi ngi fii nekk yaa ngi nekk ak moom te yàlla def sax kooka xaw a nekk ku baax yàlla da koy yiir di ko defal njëkk di ko defal njekk ba nga jóge fi gis nga bés boo fi jógee nag ca lay commencé am ay tolof tolof su mujj jamono ay tolof tolof yu métti rek lay am loolu nag moo tax doomu aadama bu nekk jigéen bu nekk di ko war di eh, moytu di góorgóorlu ci jëkkëram bu mu sax même bu dul jëkkëram na ko def ngir doomam bu dul jëkkëram na ko def ngir doomam ndax doom jooju moom moom ñoo fi des ëllëg su fekkee ne liggéeyalu ko dara rek bu boobaa problème lay noonu nit ñi nag boo waxee dañuy defe ne ay jaaxal mais kenn ku nekk ci li nga jot a dund rek boo ci jëlee référence rek da gis lii ma la wax mu leer nañ ci lu ñëpp ñu lu yëpp di dund kon loolu te loolu moo tax ma ne bàyyi lu am solo la ni ñu ko war a toppatoo bu baax a baax a baax bul moytu ndigalam bul sax jëkki ba muy def bay naan lii bay def dara mu dee mere déedéet loo xam ne lii mer baaxut ci moom ci moom nag nangu ko rek bu fa sax jege bul fexe mukk siddi dem jóg bu meram jógee parce que meram baaxut ci yow baaxut ci doom meram bàyyi baaxut ci doom kon doom war nay moytandiku bu baax a baax a baax meram way juram te fonk ko bu baax a baax fa fonk di yem mu fonk ko way juram loolu loolu la sariya say santaane ci képp koo xam ne kii da ngaa dese way jur maanaam boo desee way jur daal yaa ngi dese aljanna toujours man ngaa mën nga cee jaamu yàlla ci ñoom gannaaw bi nga jaamee yàlla pare nga fexee seen dab seen bànneex bu boobaa yaa ngi am joon yaa ngi am téem maanaam junni sens pour mën a am aljanna boo xam ne bii bu la yàlla bàyyi la te baal la ay bakkaar yu bëree bëri yoo xam ne naroon bu ko am kon loolu laay am li nga xam daa ko dolli ci côté boobu eh, côté bi nga xam ne moo ñu doon dese ci kii bi mooy wax ci li nga xam ne sharia daf ko rëdd ci eh, waa ci wàllu Euh, dëkkandoo parce que sariya dafa wax ne dëkkandoo dafa am ay façon yoo xam ne yii moo ci am dafa am dëkkandoo bi nga xam ne bii euh, benn àq moo moom nga am nga moom mooy dëkkandoo bi nga xam ne da ngeen dëkk rek waaye bokku leen euh, bokk leen deret bokk leen diine kooku dëkkandoo la boo xam ne bii da nga koo war a fonk nag moom it comme di ngay fonke dëkkandoo yëpp waaye benn àq boobu la am ci yow am na dëkkandoo bi nga xam ne bii nag moom am na ñaari àq ci yow mooy bi nga xam ne da ngeen a bokk dëkk ba pare bokk diine kooko dafa am àqu dëkkandoo ba pare am àqu diine bi ngeen bokk am beneen dëkkandoo boo xam ne bi moom euh, ñetti àq yëpp a tase ci moom boobu nag la yeneen bi wax ne ah boobu de moo gën ci dëkkandoo yi dëkkandoo bi nga xam ne bii yéen a bokk ak jegeñaale ba pare ngeen bokk diine dëkk dëkk dëkk dëkke bool dëkk boole ci nag yéen ñëpp ngeen dëkk boole ci loolu boobu dëkkandoo dëkkandoo bi nga xam ne bi moo gën ci dëkkandoo yi la moom la yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax dëkkandoo nag eh, ba tey am na ay eh, may yoo xam ne dafay doon seen diggante parce que bu fekkonte ne da nga am asaka tey di koy joxe sharia daf naan la déedéet bul fi jógee jëlee asaka bi di ko yóbbu faneen fële te sa dëkkandoo yi nekk fii ñoo xam ne mën na jël asaka bi kon ci ñoom ngay commencé ci ñoom ngay commencé bala ngay dem faneen dëkkandoo dafa nekk loo xam ne lii rek ci li nga xam ne moom lañuy gis ni ba tey rek nga xam ne bu fi dara xewoon ci kër gi rek balaa say mbokk ñëw ñoom ñooy ñëw bu dee neex la ñoom la bu dellu lu naqari ñoom la da ngay gis ci suuf sax ci suñu société bii ci biir réew mi maanaam lu la nit ki bañ bañ bañ lu ngeen bañante bañante bu dara xewee sa kër lu lu lu garaaw rek moo fay jëkk moom mi nga jàppoon ne mooy sa noon moo fay jëkk te kenn ku gën a sonn ca dimbalee la ca loola bu dee xaalis bu ko yoree dana ko joxe bu dee leneen dana ko def te la te da ngeen di ngeen di jàppoon ne ay noonu ngeen de waaye fàtte na ko bu dara xewee rek fàtte na ko loolu moom jikko bu rafet la ci ci biir Sénégal yi ma di ko gis lu ñu loo lu mu la nit ki lu mu la bañ bañ bañ bu fekkente ne gis na maanaam musiba ci sa kaw dana taxaw fexe ba dimbale ba kii booba dañ loolu moom jikko sénégalais la boo xam ne bii yàlla moo leen ko moo ñaale loolu damay wax ne eh, suñu mbokk yi nga xam ne dañ daan dañu daan fekk keer te jóge Soudan dañu daan wax ne ñun dey Soudan rek lay gis ay nit yoo xam ne ñoo gën sénégalais ma ne waaw ñu ne yom day dañuy def boo xamee ne dañuy euh, boo duggee ci oto boo duggee ci oto temps boobu boo duggee ci oto ñuy laaj paas ba agsi ci yow soo ne suñ la laajee paas nga ne maales ñu bàyyi la maales mooy mooy mooy pardon rek ci ci yow dañ lay daal di bàyyi su la bàyyiwut rek ñeneen ñi toog sax ñu ne ko yow nee na la nee la maales xam ne amut dañ lay daal di bàyyi restaurant nga lekk ba pare ñu la laaj la nga ne maales ñu bàyyi ma ne leen fii daal nañ ñaan ak Sénégal yi bañ fee yàgg waaye bu fi yàggee <laughs> bu baax googu dana dañ moom baax googu dana dañ waaw loolu eh, ci nga xam ne ci wàllu ci la bokkoon ba tey kon dëkkandoo yuy eh, addis la sax boo xam ne bii yenent bi da ko wax yenent bi moo wax ne dëkkandoo boobu de mooy bi nga xam ne bii moo gën a baax ci dëkkandoo yi mu am euh, yeneen façon yi nga xam ne dafa am ci wàllu dëkkandoo muy dëkkandoo yi nga xam ne euh, dafa am dëkkandoo bi nga xam ne bii boroom diine la nga xam ne ku am diine la lool kooko boobu dëkkandoo ku jara jaxasoog la ku bay ba sa njaboot ñiy jaxasoog yi njabootam la ndax bu boobaa danañ lay yaraale sax sa njaboot ndax yar bi nga xam ne bi moom la am ca walla ci euh, këram waaye am na lu ñuy wax euh, dayuus maanaam góor goo xam ne gii dafa fiirut day bàyyi këram ku ko ne neex waay bu dugg du ko contrôler kooka nag moom dañuy bëgg bu boobaa yow a ah, bul bàyyi sa njaboot buy njaxasoo njabootam ndax kat comme moom euh, amul firange ci bàyyi euh, njabootam ku fa neex bu dugg lu leen neex ñu def kon bu boobaa boo bàyyee sa njaboot ñu jaxasoog njabootam dañ yàq sa njaboot loolu moo tax bu kooku bu boobaa danga ko war a moytu bu dee beneen dëkkandoo bi nga xam ne day def lu bon di garaaw maanaam naan sàngara wala day def yeneen yu mel noonu kooku ci boppam it ah da nga am nooy dugganteeg moom mais da nga ko war a da ngay dugganteeg moom pour man koo laahi biir fexe ba mu mu génne loola nga xam ne moo nekkoon ci moom nga génne ko ci moom jéem ko ci laay biir mu génn ci dem ci leneen waaye nag du tax du tax du tax na nga jël sa jaboot mu njaxasoog foofa kum te jikko yooyu génn gut ci moom fekkente ne da koy nëbbu bu fekkente ne da koy nëbbu sax laa wax de fekkee ne mi ngi koy def waaye du ko génn ci biti ci mbedd bi bu boobaa mën nga dugganteeg moom di ko jéem a laay biir fexe ba li nga xam ne moo nekkoon ci moom nga laaye ko biir ko ba mu génn parce que dañ ne ak diinu nasiha comme diinu nasiha nag danga war ko nasiha parce que nasiha boobu dafay duggaat ci biir al amru bil maaruf wa nahyi anil munkar ndax ku gis lu bon war nga jéem a fexe ba laaxe biir ka nga xam ne moo ko yore ba loola lu bon loola génn ci moom bu fekkente ne génnul ci moom it fekk na yow def nga sa dabar ndax kat ba ñuy ba ñuy alak ña nga xam ne ñoom lañ tere woon ñu napp samedi ah ña leen tax ña tax ña leen doon tere ba mu ba musiba ma ñëwee dañ cee mucc waaye ña doon seetaan naan xaaral ñu xool bu fekkente ne ñii dara jotu leen ñun tim ñu napp comme ñoom kon ba ba yàlla ñëwee di alak ña leen daf leen a alagaale parce que boobu ñooñu yàlla dafa leen natt woon dafa xam dafa dafa leen nattu ci ne samedi daf ne leen samedi bu leen nepp bu kenn nappati ci géej ci jën yi ci géej gi ñuy def nag bu samedi jotee rek jën yi di lapp-lappi ba ci biti nga xam ne mën ngaa yor sa loxo sax jàpp ko bu samedi passé rek ñu dem kenn du dooleel gis ah am benn kuréel bi ne ah ñu ne dañuy nam ah comme samedi jën yi dañuy ñëw bu samedi ñu fekk yàlla moo leen di nattu te xëy xamuñ ko ah bi ñuy dem di napp nag ñeneen taxaw na ah ñu de nañ xoolaat bu ñuy napp bu ñu nappee dara jotu leen rek bu léegi ñu napp ñeneen ñi nga xam ne am nañ diine nag ñoom romb fa tere leen ko na leen yéen yàlla dafa tere lii napp tere napp ci euh, euh, samedi kon bu leen napp samedi ñu bañ ñu do romb leen gaa am ñu leen wax yéen li tax ngeen di tere ñii ci ñi nga xam ne dañu ne ñu leen ne ah ñun ko dañuy dégager seen responsabilité moom la ñuy dégager moo tax ba ñu dégager seen responsabilité bi yàlla ñëwee di alak ñëlee dafa alagaale ñi nga xam ne dañu doon wax naan nañ xaar bu fekkee bu ñu dara jot ñu def da leen a alagaale daf leen nekk leen ay golo rek ñoom ñu nekk ay golo kon loolu jar na di bàyyi xel toujours kon dañuy tënk foofu rek di ñaan borom bi tabaraka wa ñu fekke ko ay ati ati at yàlla nangul ñu suñu koor ñu koor ko ak jàmm ànd ak wér ak wérle bi jaay nabil waaw su ko defee euh, Ibrahima Diallo ñaanoon na ndigal pour am kàddu yu ci sànni oustaz ñu ngi gërëm yow ak kii nga xam ni mooy Omar Ndiaye suma doom gërëmaale mboolem ñi fi teew jotaay bi wax dëgg yàlla eh, mel na ni mu war a mel ba pare kon nag li ci des ay complément la rek Ibrahima du ñu guddal lépp loo ci war a teg teg ko ci te yàlla tax keneen ku am kàddu ku mel ni si bayo ainsi de suite et monsieur Diallo Omar ak ak monsieur Sam ku ci am loo ciy teg ak mbokk jullit yëpp bu rafetee ak yéen ngeen teg tamit baax na Ibrahima ñu ngi lay déglu. dinaa jéem bañ a guddal. du ma jéem a du ma jéem a baatuwaat lañ wax nañ ko ba pare. jërëjëf. xanaa yóbbal xanaa yóbbal bi may jox jox ñu sos association bi di nañu mooy organiser attention korité loolu nañ ko moytu organiser conférence korité jot nga ne attention korité organiser ay soirée nañ ko moytu nañu moytu ñi nga xam ne ñoo ñoo organiser nañu moytu organiser xam nga tànn beer wala tànn biti ah, ah. nañ ko moytu nañu moytu tabaski bii jub si ñu ne attention tabaski fekk nekkul ma lijjantiwuloo xaru tabaski suul ay ay soirée ngay lijjanti maanaam nañu moytu ci tam tamxarit bii jub si góor ñi sol yére yi jigéen jigéen ñi sol yére yi góor ñoo ñoom ñi nga xam ñoo sos association bi nañ ko moytu ñoom ñëpp nañu moytu 24 bii jub si ñu ci nekk ci ay caaxaan ak 31 bii jub si ci tënk li laa doon wax maa ngi jéggul asalaamaaleykum wa rahmatulah ñuy bëgg a sànni bala ñu koy mottali mu mel ne yéen jigéen ñi considéré nañ leen lool wax dëgg yàlla buñ ne góor rek ni jigéen te wax dëgg yàlla buñ ne buul da ngeen taaral jotaay bi man toujours dama leen tuddee tur woo xam ni waa ba tey rek tur woo xam ni macha allah yaakaar naa dina leen neex waaw boo gisee tamit ñu am habitude boo xam ne fu ñu toll rek yaatu ci nit ñi ci koñ bi ba ñu tuddee ñu ku mën a nuyoo ki waxewuma ko ngir len nag nit ñaa ñu koy jëwee du dara lu muy nit ku ne na xar xolam dugal ci moroomam oustaz wax na léegi kenn du nekk julit bu mat lu may la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa mbokku julit mu mel ni bala ñuy gërëm mag ñi dolli dolli muy ñam lu ñu ciy ñambaas dinañu añ kàdduñ ci sànni loo xam ni complément lay doon ndax wolof nee na ki dëkkaaleeg nit moo ko xam ñun koñ bi dara umpuñu ci doomi aadama nekk dinañuy muñalante te yàlla tax muñalante ci lan li ustaas wax rek ku si nekk da nga am ay jikko mu mel ni yàlla rek may aji mat kenn matul ku dul borom bi tabaraka wa taala su ko defee nag yonent bi dinay wax ne na ngeen nëbbante seeni ayib koo gis rek am na ayib su ko defee nit ki boo ko xamalee safaan li lay yëkkati ci daraja yu kawee mooy lan nga nëbbal ko ko te yàlla tax nañ waxante dëgg su ko defee ustaas wax na léegi ni jege ñaale mu mel ni dëkkandoo ay fànni fànn la ni ma déggee waxtaan wi ba nga xam ni suñ ci doon waxtaan nii lañ koy waxtaanee mais nag wax dëgg yàlla rafet na ba rafet ñu ngi leen di gërëm te yàlla tax mu mel ne dëkkandoo wax na ci ay pàcc pàcc dëkkandoo bi nga dëkkal ci biir kër ni ma déggee wax ji même ki nga nekkal ci mbedd mi ngeen di dox di dem te bokk yoon rawatina ngeen nekk ci oto wax na bu tudd muus mi nga xam ne sax dafa ne sa kër wala bàyyi ma bi nga xam ne yaa ngi koy yar su ko defee ñunu neen ñoo fi nekk bokk ndey bokk baay nañu fàttali ko ni bis dana ñëw danañ sàngoo suuf te yonent bi dafa am lu mu wax sallallahu alayhi wa sallam mu ni comme mënuñoo ñàkk ayib nañu nëbb suñu ayib di ko nëbba ba bis keroog nga xam ni yàlla dogal na dañuy sàngoo suuf mu mel ni ruu dellu na ci borom bi tabaraka wa taala ah, leer na ni bu keroogee ni nga nëbbee say ayib bu boobaa la la nit ñi di seede yàlla nee na malaaka yi yonent bi ne malaaka yi yonent bi sallallahu alayhi na malaaka yi loolu la ñuy looloo la yàlla di eh, eh, loolu la ñuy yóbbante borom bi su ko defee nag yow mënoo nëbbu yàlla yàlla def laa xam total ndax moo la bind mënoo ko rëcc fenn lu ma xam-xam sa jikko keroog da lay jéggal ndax li tax yow ci sag mëdi di da nga ko nëbbu woon nit ñi bokkut ak ki nga xam ne nag day jëfandikoo safaan bu màndee rek rakkaaju wolof nee na képp kuy naan boo mandee rek feeñ su ko defee nag bu ñu yor jikko jooju nañ fexe nëbbante suñuy ayib ñu gën a bokk ndey bokk bàyyi xam ne kuñ koñ bi ñoo ko bokk ku si nekk na nga jël na nga xar sa xol def ci sa morom waxtaan wi am na résultat boo xam ne ci boppam ku si nekk boo déggee ni ma ko déggee rek boo fi jógee dina am jeexital bu mu feeñal ci yow jigéen ñi na ngeen gën a bokk ndey bokk bàyyi am na loo xam ne nag xam naa ko ci ñoom loo xam ne góor gu ko roy rek macha allah góoru wat ba ngay doon. mooy lan foo toog jotaayu jigéen ngay toog bu yàggee dinañ la yóbbee jëw yonent bi saa sam nee na dafa yërndu safara jigéen ña gën faa bari mais nag ah góor ñee gën faa néew loolu oustaz bu ko doon développé wala Omar Ndiaye day gën a yaatu mais nag lan moo ko waral biñ ko ko laajee defe ni dara dañoo téyewul seen làmmañ ñi ci gën a bari nag dañoo respecté wul seen borom kër maa ngi li yëgal ni jamono toll na foo xam ne képp koo xam ne góor dikkal na la séyil te yàlla tax célibataire ci mag wóorul ndax li tax am na ci ñu bare xam seen doom yi ñoo leen di gàllankoor ñu am borom kër nit ki da ngay dem ba toll foo xam ne jaamu yàlla nga dese jaamu jël yàlla jaamu jël yàlla loole mooy li am solo su ko defee nag nañ gën a yar xale yi xale yi nga xam ne macha allah yàlla dogal na tegu na ci raay bi ba nga xam ne lii tey ñoo ko organisé ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla di nen ñaanal ngir mën day wayjur jamono nag neex na. ba nga xam ne tey jii xale yi koo ci wax rek yaakaar ne mu ngi ci diine bu fees fekk yoo dafa dellu ginnaaw mooy lan day eh, oustaz wax na léegi nii li am solo mooy xam nga yàlla dafa am lu mu santaane waaw ngëneel kenn rek moo ko am nga xam ne moo ko ëppale ñëpp muy sallallahu alayhi wa sallam yonent bi yonent bi moo ëppale ñëpp ngëneel mooy ki nga xam ni moom mooy yërmande jaam yi tey mais da dem ba mu yàgg sëriñ si nga xam ni ci boppam ay référence lañ ci yonante bi dem nañ jox leen gëdd boo xam ne sax ak jamono ji joxuñ ci ko yonante bi dem nañu ba nga xam ne nag man nag kontaan naa kilifa gi nga xam ni da nga récupérer doomu jàmbur macha allah ci warin wi ko yaayam yor nga yaakaar ni kilifa nga nga ne da nga koy yar nga ni tarbiye nga koy yeggale ko ci yàlla te mënoo ko indil jikko yu rafet loolu man d'accord ma ci nga récupérer ko ci ndeyam sàggane ko ba nga xam ne ci boppam daf lay gëm ba dootul gëm ndeyam loolu yëpp dafa am ci koñ yi dafa am ci gox yi dafa am ci societé bi kon mbokk jullit yi anamu kenn ku la war a gënal sa yaay waaw ndax sëriñ dafa am taxawaay sëriñ si ñetti sëriñ lañu mooy ñan oustaz yaakaar naa doo jóoma ma cheikhu taalim ki la jàngal alquran ak cheikhu tarbiya ak ki nga xam ne moo la tarqiya cheikhu taalim bi mooy kan ki la jàngal alquran si sëriñ même tailleur bi la jàngal métier sa sa sa sëriñ la nañu fàttaliku ni way jur ni ci oustaz wax léegi am na solo am boo xam ni ci boppam bu ñu doon continuer wallaay thème bi développé na di gën a développé ba nga xam ne ku si nekk da nga ci jaruñu ndax xam sax jaruñu nañu xeebuñu ko su ko defee way jur fooraay boobu mu foor ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku si nekk na bàyyi xel ne way jur moo ci tegu ginnaaw way jur nag sëriñ bi nga xam ni moo la jàngal alquran ak ki la tarbiya yeggale la ci yàlla ndax yegg ci yàlla dafa am ñu bari nag dañu yaakaar ne ci daam bi dafa yem ci benn niveau déedéet jaam bu ne war na dépasser niveau étape par étape étape par étape ku ànd ak ku baax rek macha allah dinga baax ma eh, borom xam ne dina wan ma sa ah wan ma sa àndandoo ma wan la sa jikko ci itam bi ni ma ko déggee mooy ni àndandoo bu baax sax jàngal nañu ko ni ñuy dëkkee dëkkaale ànd nañ ko ni ñuy dimbalantee wan nañu ko ba nga xam ne par exemple lépp defal leer nañ kon bu ñu fi jógee jeexital yi nga xam ne Ibrahima ngi koy wax ngir déggat ñaari tem ni ma ko déggee yéen jeunesse bi na ngeen dellu ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li borom xam-xam mi nettali danañu wax ni yonent bi nee na ndaw yi ko gënal ci ndaw yi mooy ñan mooy ñi nga xam ne àddina bu wootee ñu wuyu mais nag cof ci tuuti yàlla bu wootee ñu màng dem ci wootab yàlla ba bàyyi àddina ku si nekk nag di nga dox ndaw dox ndaw mënta ñàkk ginnaaw loolu foofu la ñuy tënk suñu kàddu di leen wax ne mag ñi fi nekk ci koñ bi benn par benn amul xëy jeeg seen xale yi gërëm nañ leen mais ñu ngi gërëm xale yi initiative bi nga xam ne jël nañ ko nii yàlla na continuer yàlla buñ ci dellu ginnaaw ñu ngi ñaan yàlla lii ci boppam mu doon loo xam ne dafay am jeexital ëllëg mu continuer bu continuer nit bu continuer ni ki déwén incha allahu dinañ ko préparer préparer façon boo xam ne mooy ëpp bii su ko defee balaa déwén yàlla bu ko kenn manqué weeru koor gi nga xam ne ci barkeem lan ci tënke yëpp ci yiw muy barke yàlla na ko yàlla defal yàlla nañ ci yàlla defal ba nga xam ne dina gën a kawe suñu njor su ko defee leneen lu ñuy waxate rek dañuy xabaabal ndax bés bi niñ ko préparé woon mooy nii nit ki duñ la jox fukk waxoon naa leen ko nga jël ñaar amul benn mag buñ fa gërëmul ngi képp bu ñu tuddee rek bu ñu waxee tur rek macha allah bu ñu sitee rek dana juum amul képp koo xam ne ci boppam nekk na ci koñ bi xoolee nañ la bët boo xam ne xoolee wuñ ko suñu bopp yonent bi dafa ne laa yu yuminu a xab akuna ahabbu ilayhi nit ki bëggalal sa bopp li nga bëggal sa mbokku jullit yéenal sa bopp li nga yéene yéenal sa mbokku jullit li nga yéene sa bopp su ko defee buñ ko defee ànd bi dana ne koo tane wallaahi li nga koy wan ci ne yaa ko tane mooy dimbali ko nañu dollee dimbalante te yàlla tax yonent bi ne àddina faqiir wala woon bari ndax li tax séddale ak yàlla bi dañ koo may li tax ñu may ko may nii ñu bari tey jii bu ñu amee dañ lay ñaawal ustaas wax na ko leen dañ lay saboote wujjee yi dañuy wujjee ba nga xam ne ci boppam dañuy wujjee sax ci doom yi kon bàyyi leen loolu te yàlla tax ñun góor ñi nañu bàyyi nag jeng jeng moy lan féete benn côté bàyyi benn côté am ñeenti soxna doo leen yemale loolu baaxul tey baaxul ëllëg loo ca jur loo ca def rek boo sàccee ay bàkkaar lañ macha allah kon mbokk jullit nañ delluwaat ci yàlla xam ne weeru koor gi dara taxul mu ñëw eh, wane na boppam ndax boo koy misaal dellul ci alxuraan alxuraan boo ko seetee yonent bi boo koy naan jikko yi rafet. neel rek yonent bi mooy alxuraan bay ko laajee nday Aïcha kon yonent bi mooy jëmmi alxuraan te boo ko seetee comme alxuraan ci weeru koor lañ ko waaj boo delloo ci yàlla nga xam ne wallahi la alxuraan weer yi boo ko doon euh, boo ko boo boo doon natt ni ban weer mooy weer mooy yonent bi neel mooy weeru koor su ko defee nag la nga xam ne nëbb nañ ko ñu dëxëñ ko mooy laylatul xadr yàlla nañ ko fekke buñ ko fekkee yàlla nañ ko yàlla woon zahiran wa batinan doomi aadama ñett lañu mooy ñan ñi yàlla ak ñi yegg ci yàlla ak ñi ràññi yàlla yal na yàlla boole ci ñi ginnaaw biñ ko jegee ñu ñu ñu ñu ñu yegg bu ñu yeggee yal nañ bokk ci ñi ràññi yàlla doomi aadama yi li fi ñuy ëppalante du leen ku la gën a yëg yàlla rek gën laa gën laa xam yàlla képp ku la gën a fuglu yàlla gën laa xam yàlla su ko defee nag ñaan dafa am ay buntu nañ fexee rek daa iman lépp loo xam ni faqastalu nañ ko nañu delluwaat fóot suñu bopp yal nañu yàlla fóot mooy weeru koor weeru fóotookaay la incha allahu yal nañu yàlla setal ba li weeru koor di junj yëpp yal nañ ko am su ko defee yàlla setal ñu ñu jógee ci ba doo ci am bàkkaar weer yëpp ak weeru koor ci sama dégg-dégg ñoo yem li tax yàlla indi weeru koor gëna la ko yeneen weer du dara ñu toog fukki weer ak benn du ñu lekk du ñu naan du ñu def dara ñuy lekk di naan laa bëgg wax ngeen baal ma bu ñu demee ba weeru koor mu ne acca nag bëri leen su ko defee nag dafa am heure ya leen lekk am heure ya leen ban bànneexu dagal naa daganal naa leen ko mais dara taxul mu ñëw lu may bu ëllëgee am na ñoo xam ne yàlla tànnal na leen weer yëpp weeru koor lay doon ci ñoom ndax bañ jógee ci weer wi rek seen jikko changé na ba faw ñu bokk ci ñi nga xam ne ñooy doonay saalihiina yi ñu bokk ci doonay ñi nga xam ne ñooy wëllu yàlla yi wëllu yu lu jege la bët ku am kas fu rek xam kan mooy wëllu wëllu yàlla yaa ngi nii suñu biir wëllu yàlla yaa ngi nii suñu biir mais dañ koy jël askane la ko fa sori yaakaar na ci sant yi gën a siiw ci àddina nga xam ne par exemple ñoom koo ci jox eh, wëllu yi dañ koy askanale ay kër kër gii la ñu nekk kër gi la mais ku sabablu pour yegg ci yàlla yàlla dina la ko mën a may yàlla dafa ne man yàlla damaa jege ba gën a jege ba gën leen a jege sama buumu xol seen buumu xol war naa ko noo aqrabu ilayhi min xablil warid lan mooy xablil warid boo ko laajee ñu bare du la ko xam duñ la ko xamal mais nag yàlla jege bi ci boppam xoola sori bi moo waral jege bi jege bi moo waral sori bi mbokk jullit yal yàlla def arifin mbokk jullit yal yàlla may wilaaya mbokk jullit suñu jaamu yàlla yal na ak xam bu ñu xamul nañu laaj ñi xam jàngat du wees jàng du wees su ko defee mbokk julli ñu leen di gërëm jotaay bii taaru na taaru boo xam ne wallaahi laadim boo gisee ñàmbaas bi tollu nii damay xër ba nga xam ne jotaay bi dañ ma ne woon yaa koy def mais ma ne wóoluwuma sama bopp ñii laa wóolu ñoo ma koy defal buñ ko defalee ba pare nag xale yi dinañ kontaan mag ñi kontaan ñun ñii amuñu xëj seen na ngeen xam loolu ku ma ci gis rek sama bopp laa gis su ko defee bu ëllëgee boo melee noonu nag da ngay am ijaaba foo toll loo koo ñaanal mu nangu boo ñaanale sa morom mu nangu su ko defee nag ma delluwaat di leen wax ni ñunu neen la ñoo bokk ndey ñoo bokk baay nañ dolli sàmm di eh, sàmm diggante bi mu gën a leer jamono ju ne koo tànn demal ko société bi am na solo ah yal na yàlla barkeel ko ba ëllëg ñu dem ba nga xam ne ci boppam xale yi mag ñi dañ leen ci roy ci jikko yi rafet su ko defee thème bi am na ñaari thème yëpp am na solo yal na ñu teewee déwén bu teewee déwén déwén yal na dàq yal na yàlla nangul suñu koor yàlla bu mu nekk suñu mujjantelu koor asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh nangu yal nañu yàlla nangu oustaz boo leen paree ngeen def ñaan boo leen defee ñaan tamit eh, eh, xale yee xam na nañuy continuer affaire bi tamit. presse bi nga xam ne ñoo fi ñëw nga xam ni seeni itte yëpp dugal nañ ko suñu itte ñu ngi leen di gërëm te yàlla tax ban télévision la ah ah ah seen clip waaw waa seen clip yal na yàlla dimbali leen ngeen yàgg fu gën a kawe seen njort loolu yaakaar naa rek mooy ñaan bi waaw incha allahu gërëm nañu leen déplacement ngi bii ngeen def yàlla bu mu nekk seen mujjantelu déplacement ci ñun ñu ngi leen di ñaan nag ngeen ànd ak oyof toll continuer comme ni ngeen oyofee nii ëllëg bu ñu leen soxlaa rek am leen bu soobee yàlla ni ngeen fi ñëwee ba nga xam ne ci boppam amu leen ci benn rëy ñu amee leen nii ci yomb-yomb yal na yàlla def seen télévision yàlla lancé ko ak seeni i yëngatu yëpp yàlla lancé ko ba àddina bi yëpp yëg ko lépp lu doon seen jafe-jafe yal na yàlla ko teggil ko ñoddil leen li nga xam ne mooy ngëneel daa iman ngeen di ko am bañ a dellu ginnaaw ba faw ànd ak wërsëg wu yaatu nag équipage baak mbool ak ci ne ci bopp bi ba kenn ci suuf yàlla dimbali leen ba lépp loo leen yootu jot ko ku si nekk di ci gis boppam su ko defee ci tënk rek loolu lañ leen di dooleel te yàlla tax yàlla may leen wér ak wérle dafa ne mujj gu rafet oustaz eh, suñu pare yi nga xam ne ñoom la ñu pare woon aussi ñëw nañu donc marraine yi aussi ñëw nañu donc ñu ngi rafetlu di leen ñaanal jàmm tey ñu sàpp ci ñaan di la wax ni ñun ay xale lañu li ñu bëgg mooy ñëpp nekk benn li ñu bëgg mooy ñu ñëpp ñu baax parce que ñun xale yi ñooy demalante man ñi ñu toog ci biir kër yi suñu boolee nekk benn rek suñu mag bi danañ dem ba danañ boole dañu nekk benn loolu lañ ci jublu donc ñu ci sàkk ñaan bu baax a baax di saa ñaan imam di la remercier di la def bu baax a baax car macha allah yàlla yàlla dafa jàmm imam moom sa tamit yàlla yàlla dafa jàmm bu dana fan toogaay bi dana leen ci heure bi yàlla leen fekkaat ci heure bi bu soobee yàlla fekk ñu ñëpp fekk kenn bàyyi alhamdulilah presse yi nga xamante ne ni ñoom ñëw nañ fi ah, ñoom nag li leen fi ni mooy ñi nga xamante ne ni ñu ngi feneen te amuñu jot ñëw soit ñu soli pour ñu taataan li fi tas ko mu dem ci àdduna bi yëpp donc ñu ngi leen remercier di moom bu nga fekkee am na nga xam ne boole nañ ci yiw bi nga xam ne euh, groupe euh, ànd liggéey seen gox nekk fii ci Grand Yoff amal jotaay bu rëy jotaay bu taaru bi jotaay bu barkel bi fii ci gox Grand Yoff jotaay bi nga xam ne day waral yi wax envoyé spéciaux yi nga xam ne ñooy almalaakatul kiram malaaka yi nga xam ne dañuy wër ci kaw suuf ci béréb di seet béréb yi nga xam ne dañ fay bàkk di fa tagg borom bi subhaanahu wa taala malaaka yooyu di ñëw di yóbbul borom bi subhaanahu wa di ko wax ne am na fële ci Grand Yoff Euh, benn mbootaay boo xam ne dafa dañoo dippee seen bopp euh, groupe euh, liggéeyal seeni gox ñoo nga fële tànt di la tudd borom bi subhaanahu wa di la màggal ay góor ay jigéen ak ay ndaw dajaloo di la màggal foofu ah, borom bi subhaanahu wa taala di wax ak malaaka yi ne waaw ñooñu nga xam ne dañoo daje foofu di ma tudd san sell di ma màggal di ma kañ maanaam lan lañ soxla mu ne ko ah ñooñu de ñoo ngi mëbët ñoo ngi xemem lii sa aljana ji mu ne ko ndax dañ koo gis mu ne ko wallaahi borom bi subhaanahu wa gisuñu ko mais dafa am ay borom xam-xam yoo xam ne ñoo leen koy gaaral ñu xamem lool mu ne ah bu ñu ko gisoon nag lu ñuy def mu ne xanaa gën a farlu mu ne waaw mbootaay boobu daje foofu maanaam ana lan lañuy moytu mu ne ko ah ñoo ngi moytu sa safara ak li nga xam ne moom ko ci dig ak ñi nga xam ne ñooy jadd yoon ñooy jadd si nga xam ne ñooy sa ndaw yi muy yonent yi alayhi salaatu wasalaam mu ne ndax dañoo gis safara boobu mu ne ko dooleen mu ne buñ ko gisoon ni ñuy def mu ne xanaa gën a fagaru gën ko moytu mu ne yëgal ma ne ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi ci jotaay boobu ak ñi nga xam ne ñooy romb man borom bi subhaanahu wa jéggal naa leen kon yàlla ñu yàlla jéggal yàlla ñu yàlla xiir ci boppam yàlla ñu yàlla saxal comme ni ñu ko waxee maanaam lii sas la ci mbootaay bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi wax ne ah jëf yi gën ci jëf yi mooy jëf ji nga xam ne dafay sax kon ngeen góorgóorlu saxal lii asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam.